terminer sa belle saison de lutte avec frappe mbokki Sénégal Ibulaay production doomu Parcelles Assainies bi ndaanaan bi xale bi nga xam ne bu tëggee rek ñu xam ne tëgg na moo ñu woo ci arène nationale le samedi 6 juillet 2024 combat choc combat derby combat jàmbaar xale bi nga xamante ne ni lamb da koo namoon lool muy kan ñu ni Pape Mbaye numéro 2 bu Géejawaay du xam ngeen ko xale bi nga xamante ne ni dafa marqué ay empreinte am ci lamb moom la ñu jël nag daal di koy booleeg Dame Sène bu Parcelles jàmbaar ji champion bi ndaanaan production du yem foofu de combat spécial bi drapeau le grand champion la Boy Kaïré Papaye Diène Diouf Kaïré kenn ku ne koy bëri ñu ne le phénomène de l'arène Laurent Ndiago mel ni mi moo fa war a jàkkaarloo ak sekk ndaanan mi saf xorom loolu te mën a bëri waaye ci bés boobu mbokk yi déglu leen sëy jàmbaar dina fa jàkkaarloo ak armée jéey joona bi dina fa jàkkaarloo ak armée bu ndewraan sentel junior jàkkaarloo fa ak petit zé mbay défoncé numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak zé bay fall booy njaay njaay jàkkaarloo fa ak zënd bu ndaw petit laay dina fa jàkkaarloo ak caatu souleyman jaw sonra jàkkaarloo mbokk yi ak Modou Lo lis bu ndaw jàkkaarloo fa ak fils de Aldo sponsor yi nga xamante ne ni mbokk yi ñoom ñoo gunge Ibulaay production ci bésam boobu bokk na ci Jador ETDR Harmonia Jambar News Xelkom automobile ci bés boobu nag mbokk yi Ibulaay production nee na invité d'honneur bi du kenn ku dul Modou Xarañ Lo le roi des arènes ci le samedi 6 juillet ci arène nationale ñu ànd ci ak Ibulaay production naa buñ sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur sant waa Bawol gépp rawatina waa Newraan di nuyu ñi ci salle bi yëpp di nuyu sama adversaire di la nuyu yow tamit di nuyu waa Newraan bu baax a baax di nuyu Bawol gépp rawatina Colobane bi ma jógee. Jara ah, ma yàlla ji di si ànd ak ñu sant waa Thiaroye géej gi ma jógee ñëpp nuyu ñëpp ñëpp ñëpp nuyu waa Thiaroye ñëpp aw ma seen fay di sant ñëpp ñëpp ñëpp waaw di ñaanal Youssou Gueye bañ. bàyyi sax yàlla leen yàlla yaram xaare àjjana ñaanal sama bàpp yàlla ko yàlla yaram xaare àjjana di ñaanal waa caare yi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xamante ni xam nga ñoo presse géej gi di boobu ba léegi kenn gisu leen di leen ñaanal seen borom ñu leen waaw di la sant bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama adversaire waaw xam naa ko bu baax armée la waaw waaw dara dama ko ñaanal jàmm rek bala siis mu ñëw daanu dem waa loolu moom garaawul loolu méttiwul quoi le 6 damay daanu dem loolu garaawul nañ bàyyi ba le 6 quoi. un mois de de un ñëw na waaw ñëw na ndax looy bañ mu ñëw bu ko jàppal bés. bu doon tey tey tey pare nañ ndax li ñu war a def lépp ñu ngi ci te ci kàttanu yàlla le 6 damay am ndam incha allah. bërekat la xam naa ko champion la ndaanan la loolu damay neex sax. bu njëkkee day loolu damay neex ba le six rek incha allah. mosu mosuñu ko lëng de. waaw dinañ ko lëng bu neexee yàlla. Jona dañ yàlla moo def depuis mbabat ba léegi bu ñu génnee dem mbabat yi ka mos ki mosuma lëng te mbabat sax kon si lëng garaawul lu ci am mais ma depuis mbabat mbabat te ma ka lëng ma ñu bis ma. lëng. non non lëngagul ma léegi. ar bu jotee rek dinaa dina jot. armé lëngaguñ ma léegi du jamono yi nii sax li buy dañ maa sax sax. la tey. lëngaguñ ma jamono yi du jamono waa tey lëngaguñ la fii ba le 6. ba la 5 lëngaguñ la mais le 6 nañ la lëng nga ñibbi. le 6 di nga ñibbi Ndefleng si lu gaaw. ak ndam. lu gaaw mënoo yóbbu ndam. waaw baax na yow xam nga bu baax. sa genre bi dama ci aay de. xam nga bu lu may xam ci yow. xam lan laay xam ci yow. lu ma la wax maay kan. bëri de damaa ñu ma la métti moo tax. la wax. làmb ji fi ko teg tegi ko nga xam nga ma def nga nii def na nee. fa laa ko teg léegi. déggoo li ma la wax man ma xam ci yow dara. fa laa ko xam ci yow. ci yow ci lan nga nekk xam nga ci yow ci looy dox. nga naay xam nga sequma daan la nga dem ñëw. mënoo ko. waaw nice. dama laa mën dama laa ëpp doole. waaw da ma ëpp doole baax na. man nga moo tax. li nga wan ni yaa ko mujjee wax armé armé ma lay salaan Iba Mar du léegi du léegi de. yaa ko yow yaa ko mujjee wax ma nga. est-ce que jaawaloo ko armé yi bari na de. armé bii la moom mii. Iba Mar man. Iba Mar man le 9 janvier 2022 laa bëre sama premier combat. waaw moo tax ma combat Baye Mandione junior. Ah. ak Kale. moo tax moo tax non non waaw Baye Mandione di bëre ak Ndiaye Iba Mar. Youssou Ndour Vieux Dacia. moo tax ma ne la booba ma Baye Mandiaye bébé bis. booba man takkaguma ngemb di bëre. waaw mais bul ma ne man la maa ngi toog di la loolu 2022. voilà boo ko waxee day mel ni ay ay junni at ci ginnaaw. mais man dañuy wax li fi nekk. man nga moo tax signature bi mu tee nañuy wax direct bi quoi. léegi yow bu wax dëgg sax yow man nga. voilà waaw mag la waaw man mag laa nice amul benn problème. wala yàbb nga tëdd. man du ma fi nekk naa mag laa wala ay laa yooyu yooyu beneen détail la. ay mag laa xale laa yooyu beneen détail la léegi ci détail lamb nañu wax ci loolu. leneen loo wax lu dul da ngay daanu xamoo samay atta xamoo fu ma juddoo xamoo ci man dara bul ma mag nga man jéemuma xam ndax yow mag nga wala ay doo xale ci lamb ji la ñuy wax. loolu boo ko la jëndiwul loolu sa problème la. voilà nañu wax ci lamb ji rek loolu boo ko la jëndiwul sa problème la mais dama lay xamal ne la Régis da ngay ñëw daanu su ma lay neex di la naxare. waaw <laughs> euh, naa li ko umpale dafa bari. bilaay mbër li nga xamul dafa bari de. amul leen lu li nga xam lu tuuti la. manoo sax da ngaa télé. li ci bëri ci bëri. waaw bàyyi booy sa genre gii dama aay ci ñoom de. saa man taar tamis gi laa juddoo. doomu ndox la man Newraan laa juddoo doomu séeréer pur damaa mën a bëre barke maam Seera Fall bu ñu tijjee fii ma jàngal la bëre barke alxuraan nga ne waneeku ma bëre de yow bu ñu tijjoon fii génn saa bu ñu ñëwee sa kaw lañ may fekk fuuf diisam maa leen dàq bëre non kii kii dafa neex rek maa ko dàq bëre média ñi lay seetaan lii bu génnee koo gis dina xam na yow ñi mu dëkk ñi mu dëkk bu lijjanti ñi ma dekkal man lijjantu yow koo dekkal yow laa seqal pour ñi nga dekkal sama yoon nekku ci dëggoo li ma la sëñ bi moo tax commencement bi nee naa la lamb ji fi ko teg tegi ko ay fi ñu mu dekkal ca bool di am looy geesu man nekkuma ci yooyu man ki teddal benn lal aw ma moom wax man yow laa amal affaire du ma dugg ci sa vie privée du ma dugg ci beneen détail dama laa xamal ne dama laa mën waa cadre la ñuy wax mais dañoo gën a lamb si la ñuy wax maa mën mais dama laa mën waaw yow yaa ma mën yaa ma doole yaa ma dàq bëre yaa ma fit ah, mais maa lay daan ah man maa lay daan laa mën daan déggoo li ma la wax. man daan laa mën ay dama mën a bëre ay dama doole yooyu nekkuma ci man daan laa mën te xam naa ne ñuy daane du man ngay daan te ci kàttanu yàlla le six dinaa toog ci sa kaw ci kàttanu yàlla du yow du yow du ma du yow yow yow yaa may dégguloo mu ñëw déggoo li ma la le six insha allahu rabbi dinaa toog ci sa kaw xooluma la sax xooloo ma loo jëlee sama yàlla xam na ko kon loo jëlee sama da nga war a jaar sama yoon da nga war a bokk si lim bi kon xool nga ma lim bi da nga say war a bokk non man du ma la xeebal li ne ci yow lim bi laa la da nga say bokk man dama la respecté dama la naw waaw xanaa man maa la naw sama naw woon naa jël sama mais bul ne xoolu mais dama lay xamal ne da nga war a bokk si lim bi ci limb ba lim bi ma lim gars yi doo ma daan gars yi lim sànqane yow déggoo li ma yow doo ma bokkoo ci ñi may daan waaw yow ma yow waaw fu ñu daje fan laaj ko ko dajewuñu fenn ah, fii dajewuñu fenn ay jàng waaw loolu loolu daje ay jàng loolu garaawut ay ñitam ñoo xew le mu demal leen loolu du suñ dëkk du seen dëkk loolu garaaw loolu à part la ay jàng la ay nitam eh, ñoo xewle mu dem. loolu naa waxuma la ay loolu de man bu nee su waral ginnaaw su waral laa mën a sax damay dem Bawol ñëwaat. yow mu bu la neexee jouru lamb di nga dem man bawol ab utalu ma la fa eh. saa bu nee suba la man damay dem bawol ñëwaat booy déggoo li ma la bawol utalu ma la fa sens interdit loolu moo gën a dee dugal fu la neex yaag la ngay jële bawol ak lépp boo ñëwee danga koy dee xaar biir géew bi yëpp maanaam yaa fi dugg ah, man te lamb ji ci bëre lay jeexe fi nga ko teg tegi ko wàllu biir géew laa la wax waaw dama lay wax rek demal bawol demal demal bawol demal fu la neex waaw yow yaatal loolu barke maam Cheikh Rafal demal Bawol demal Newraan ba ma dëkk fu la neex dem yow yaa ngi dox di geesu di am yooyu wér di wér rond point di teggi <laughs> nekkuma ci yooyu koo tegg sa tànk xam naa lool da nga xam ñi koy def da baax rek loolu da nga xam ñi koy def bi wala may taxawee ba léegi geesu rek mais li nga xam bëriwul wala may taxawee ba léegi barki Seydina Mouhamed aw ma sa li nga xam ci armée dafa bëriwul laa la wax voilà balaa may taxaw ba léegi amoo sa jot. yow maanaam sa genre bi ñu ñu mosul daan ñi dama ñu mosul daan ñi dama ay ci ñoom. aw ma sa jot sax aw ma ma sa jot. woote leen maa ngi woo ñi may jàppale ñëpp avant may woote damay sant Ibulaay bu baax a baax promoteur bi xam nga mbër yi bari nañ fi bari nañu bëgg combat amuñu ko moom mu xool ñu ñu nekk ay jeunes moom tamit mu nekk jeune xool ñu boole ñu. loolu dañ ko ciy sant di ko remercier di ko ñaanal bésam bi nii nii lépp lu mu ciy séentu lu mu ciy geesu yàlla na ko ko yàlla suñu borom defal côté mobilisation moom man mbër yi ma gis mu boole ci kàttanu yàlla dinañ mobiliser ndax gis naa ci ay jàmbaar yoo xam ne nii dañu andi mbooloo bésam bi li mu ciy mébét moo xam yàlla na ko yàlla defal di woo waa Newraan nag bi ma juddoo maa ngi leen di woo tubaatul bépp maa ngi leen di woo képp kuy jàppale armée rek maa ngi lay woo rawatina waa Colobane mooy jóge di woo sama grand DG Ousmane maa ngi lay woo bu a baax nga ñëw jàpp ci combat bi ñaaxarañ loo ax ma maa ngi lay woo bu baax xam nga di woo Modou Fall ma Lamine Sapeur Fallou Sofa maa ngi lay woo bu baax Faye Sefa xam nga ak Mbaye Sefa tamit maa ngi koy woo ci bés bi di woo mafia teen bi ngeen ñëw jàpp ci bés bi bu baax a baax waa jël dem xam nga maa leen di woo yéen tamit mafia xëy na ceeb bi newraan gépp ku lim rek juum di woo waa Touba maa leen di woo bu baax a baax waa xel Xelkom maa leen di woo daaray deux daaray sama mbokki daara yi maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax képp koo xamante nii tey yaa ngi jàppale armée rek maa ngi lay woo di ma woo sama grand yi may àndal ñoom Mbaye Sylla Ousmane xama génération 2001 maa ngi leen di woo ngeen jàpp ci bés bi seen rakk moo ngi leen di dagaan ngeen ñëw jàppale ko ci billet yi ndax promoteur bi dafa am lu mu ñu sas te leen rek lañ war a mooy mobiliser billet yu ñu jox boog nañ ko jaay yéen ngi leen di woo ngeen jàpp ci loolu ak 2010 génération 2016 ak 2023 ngeen ñëw jàpp ci bu baax Ibrahima Mbuub borom causerie yi maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma ci bu baax a baax a baax ñoom Abdou Boukhou Abbas ku lim rek juum. egg ko li des ba lundi bu lundi nga fukki penc ñaar yëpp du ko fépp koo xamante ne rek lépp mu fa rek maa ngi lay a baax a baax a baax di santaat waa Thiaroye Géej ñëpp li ko dalee usine ba mbatal maa ngi sant Thiaroye ñëpp di leen woo ñoom ñëpp si combat bi képp koo xamante ni jeune nga ci nekk Thiaroye rek maa ngi lay woo baax a baax a baax a baax di woowaat waaw sama waa staff staff joonaa bi di leen sant bu baax a baax baax a baax ndax gis naa leen ma taxawoo si a baax a baax démb rek bi may ñëw seen daa mu may laaj ba xam naa waa mu ngi naa waa boo demee laajal sa waay ba xam ba xam lii a la bëri ndax lan dama teel a jël seen xaalis barki Seydina Mohamed suñu xaalis bu biyee san moom fa suñu loxo dañ ma organiser làmb ju rëy gagné sa xaalis bu bëri barki Seydina Mohamed lépp ku fas yéene kaa jëndee ngi sant maa ngi sant bu baax di jël teg si loxo sëñ daam maa saw spécial di leen bu baax a baax a baax a baax a baax sama booy yëpp di sant waa Caaroy Géej ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ama seen fay di sant sama ndeyaay papa kay bu baax a baax a baax a baax sama yaay ndey mu di leen sant bu baax a baax a baax a baax amiin di sant ñëpp di woo maître Ndiaye sunu monsieur le maire maa ngi koy bu baax Abi maa Massamba ñoom ñooñ maa ngi leen sant bu baax ñoo jàpp sa làmb ji baax a baax a baax a baax baax